bi lañ doon xaar comme ni ñu ko waxe woon rek euh, wala ni ko Cristiano Ronaldo waxe woon rek ci but yi su benn su su gëjee dugg wala su toogee lu yàgg duggul benn bi su ñëwee rek ci des comme ketchup lay doon je pense que les titres de champion d'Afrique tamit dafa mel ni noonu la euh, commencé jamono ji ak euh, Sénégal mais ça ne tombe pas du néant quoi aussi il faut le dire parce que yëf yi mu ngi doon xeeñ a chaque fois dañu doon dem ba di ko jege mu ñuy rëcc parce que soo xoolee u yi euh, bi mooy seen quatrième finale quatrième finale u boobu la ñuy door a gagné kii bi trophée bi te à chaque fois dañ doon dem jege ko lool par exemple je me rappelle tournoi bi nga xam ne Sénégal ñàkkoon na ko euh, au Niger muy euh, génération ñoom Ibrahima. non pas pas, pas Ibrahima Niane mais euh, je, je je sais plus mais c'était équipe Youssouf Dabo bi la woon. ak mm. ñoom euh, Badji. Euh, tout ça euh, ba Mali moo ñu éliminé woon moo ñu moo ñu gagné woon finale mm-hmm. mais compétition boobu gis nañ ni que le Sénégal était vraiment plus fort ñoom ñoo mënoon a Mali. mais malheureusement dañoo dem tir au ñu ñàkk ko équipe boobu sax demaat na coupe du monde ba demi-finale ñu éliminé ko aussi par tir bi ñu ñëwee équipe A bi aussi c'était pareil dafa finale Coupe d'Afrique ak Algérie on était très proche ñu demaat beneen édition ñu demaat finale bon ce qui veut dire que yëf yi il y avait un travail qui se faisait quoi c'est que on avait du mal à récolter les fruits ou bien euh, def le pas qu'il fallait pour commencer à gagner trophée mmh. mais dafa mel ni que léegi euh, on a brisé euh, le plafond de verre mmh. euh, trophée yaa ngi ñëw et pour U20 yi ah, je pense que c'est le plus beau ah suñu sukkandikoo euh, ci mhm. tournoi bi ni mu demee tout ça yow euh, tu vas dans une compétition boo xamee ni tu marques ñaata treize quatorze quatorze buts. Mmh. sans encaissé zéro but encaissé avec des matchs yoo xamee ni que da nga koy contrôler tu concèdes mmh. très très très peu d'occasions mmh. et ça s'est vu après ci euh, récompense finale yi euh, les récompenses individuelles on on rafle tout je pense que c'est extrêmement mérité pour cette génération et euh, un grand bravo aussi à l'entraîneur Malick Daf qui est Mali Malick a mm. fait un excellent boulot. Mm. Euh, Malick Daf boo xamee ni euh, équipe bi euh, bi mu ko yoree yàgg na parce que il a fait une coupe d'Afrique fii nii à Dakar ak cadets mm-hmm. mu waroon dem. beneen compétition au Maroc il a eu euh, la Covid ñu annulé ko. Mm-hmm. mais il a continué à travailler dem Mauritanie gagné tournoi bi nga xamee ni moom moo tax mu ñëw fii. daje Gambie euh, gagné ko ça veut dire que c'est un monsieur persévérant qui en un moment donné amoon benn polémique bu fi amoon par rapport ak euh, ni coach du yor club. yor yor yor équipe nationale te boobu fekk mi ngi yore woon jaraaf. Mhm. di def ay résultats jaraaf qualifié euh, maanaam gagné championnat bi. mu qualifié loo jaraaf pratiquement euh, Ligue des champions phase de poule mu nekkoon euh, non pas Ligue des champions mais c'était euh, CAF ki beneen tournoi bi coupe coupe de la CAF phase de poule mu nekkoon une très bonne performance mais après il a choisi l'équipe nationale il s'est sacrifié jël équipe nationale Guinée mm. yi jii on voit les euh, résultats mais comme ni ñu ko waxee aussi du ñoom kese Chérif mi ngi ko doon wax sànq y a tout un monde derrière mm. euh, les formateurs ñi nga xam ne ñoo yoroon booy bi ñu nekkee minime di leen tete ba ñu dem ba dugg ci académie mm. te les académies aussi faudra les mm. remercier je pense que ci kanam dinañu recevoir euh, benn président académie boo xamee ni def na ci liggéey bu am solo mm-hmm. euh, ci équipe bi daanaka am na si juróom benn jour yoo xamee ni moom moo leen euh, formé mm-hmm. et je pense que ñooñu tamit dañ leen war a gën a dooleel parce que footballu Sénégal C'est vrai que les administratifs, ils font du bon boulot, mmh. mais euh, le plus important, le plus essentiel, mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi di former xale yi di leen euh, tàggat ngir tey jii ñu mën a joxe résultat yu ni mel. très bien suñu invité ci kanam Madi Touré la euh, muy yëngatu ci wàllu woowee daañu ko dalal ci ñaareelu pàcc bi incha allah mu gën a yaatu Marcel. waaw euh, je pense que tey yàgg nañ wax na ne que Sénégal mu doon benn évidence que mhm. Sénégal c'était un c'est un pays au talent multiple en tout cas sur le plan sportif, mais surtout sur le plan du football. Euh, je pense que c'est une suite logique mieux vaut que jamais li loo xamoon euh, ko raté woon ci dans les éditions précédentes tey ñu koy ñu je pense que ce n'est que rattraper le le, le temps perdu une, une bonne fois pour toutes donc solder li nga xamante ne moom euh, incompréhension yu gën a mag football africain. Mhm. Euh, ça a commencé wax nañ ko avec la CAN 2021 mu c'était euh, technique boobu mën a am. Mhm. Euh, mais balaa loolu effectivement faut pas oublier quand même qu'il y a eu la lions des des malentendants yoo xamante ne woon nañ kan bi ak waa beach soccer tamit ñoom nga xamante ne ils plus habitués à gagner des des trophées bu ndaw mhm. xam souvent à chaque fois su ñuy teg trophée yi. Mhm. dañuy euh, wax naan ana boobu les lions. xaw les lions malentendants mais c'est que boobu aussi dafa nekkul. kii boo xamee ni CAF moom moo ko organisé moom moo tax euh, gars yi duñ koy teg foofu euh, ñu dajale foofu trophée CAF mais aussi comme ni niñ ko waxee ci la ñu bokk <laughs> ci lañu effectivement ne kan teg trophée ca pale ba doon indi euh, malantaane seen coupe de toute façon sargal nañ leen je pense à la performance quand même je joxoon nañ leen fi benn récompense ku ci nekk donc loolu yëpp muy muy firndeel comme ni ma ko waxee rek talent bi nga xamante ne mu ngi fi woon et dafa amoon justement benn accompagnement ay accompagnement yi nga xam ne fi am wax neen ko itam avec l'avènement des centres de formation des académies mm. euh, ñu joxe beneen euh, euh, aspect ci mm. développement football local donc avec bien évidemment ñi nga xamante ne très jeunes dañuy am formation ci wàllu football waaye tamit ci jàng beeg yooyu noonu donc ils ont une autre philosophie du football ça nous change un petit peu des clubs classiques quand même yoo xamante ne def nañ fi faut pas bu am solo mm-hmm. talent euh, qui est qui est récompensé donc euh, li ñëpp doon xaar ci lu yàgg moom moo moom moo am jamono ji maintenant euh, yàgg nañ ko fi wax le plus dur ce n'est peut-être pas d'arriver au sommet mais c'est de maintenir justement cette cette cadence une fois une fois au sommet mm. donc je pense que tey li ñu dese ñëpp xam nañ ko mooy les performances en club mm. loolu moo ñu loolu moo ñu dese ci wàllu football ndegem sélection yi wane nañ ko léegi club yi ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci des j'espère mm. que le syndrome maa ngi ko doon wax sànq bu Cheikh Tidiane Diaw le syndrome de la France ne va pas nous Euh, nous nu nous attraper aussi ndaxte France gis nañ ne équipe nationale. Euh, mais c'est euh, comme la France <laughs> oui ils ont pratiquement la meilleure équipe nationale du monde. exactement et les monde. en club ah, ah, comme on est au mois de mars. Mm. jigéen ñi tamit je pense que ñoom tamit elles ont commencé une benn benn yoon boo xamante ne c'est mm. c'est très louable c'est très très honorable mm-hmm. ñoom tamit ñu ñu yokk leen moyen yokk leen liggéey bi. ñuy def ak ñeneen ñi ngir ñoom tamit ñu mën a fexe ba nekk sur le sur le toit de l'Afrique parce que le football féminin mhm. euh, est en train de de se développer fortement. macha allah Chérif waaw man ci euh, delloo ndukkal déjà comme ni waxee acteur yi ci jàpp yëpp a ah, commencé ko par la fédération parce que mhm. dañ koy fàtte Augustin bu ngeen ba mu fi bëggee beneen mandat coow li ko fi toppoon malgré le critiques mais ci pratique bi gis nañ ni quand même comme li ñu wax seen slogan boobu manqué wut ndam li maintenant c'est devenu une réalité donc la fédération aussi am na mérite ci li nga xamante ni mhm. mooy ces bon résultat yi football bi di am beneen bi tamit mooy formateurs yi buñ koy wax nag euh, mooy euh, comme ni ngeen ko waxee académie yi parce que gis nañ génération foot jaaw euh, par de sept jours yoo xamante am nañ ko même chan bi passé lu ci bëri aussi ci ñoom la woon mm. jàmbaar aussi mënuñ ko voter mooy CRSEC ñoom it ils font un excellent travail boo xamante ne je pense que mérité nañ ñu jox leen seen gëdd ak décoration yi xamante ne aussi pour service rendu au football mais am na koo xamante xëy na yàlla def na mi ngi ci suuf dundatul muy El Hadj Malick Sy parce mm. que buñ fi doon wax ay Aldo Gentina ah, ñoom sa Salif Diaw ak euh, ñoom Moussa Ndiaye ñi nga xam ni génération 2002 bi moom presque moo wane yoon bi après yeneen académie yi ñëw fi donc kooku aussi mënuñ ko fàtte euh, je pense que moom it mérite na même à titre posthume euh, bi nga xamante ni quand même pour ce qu'ils font pour li nga xamante ni moom mooy wàllu formation bi benn bi tamit mooy comment consolider ak yi parce que dañu gis ni surtout petite catégorie bi gone yi des fois dañ leen di fàtte ñu jaaw mi ngi koy wax sànq Mm. ak ak ñoom Pam gisatuma fi keneen koo xamante mi ngi mi ngi mi ngi toj ci te waroon na yéeg. Mm. bu dee France wax nañ formation am na solo mais quand même jox confiance gone yi di leen yéegal ndànk-ndànk. Mm. moo tax nag quand même Aliou Cissé nga xamante mooy A bi seen place quand mm-hmm. ci ci équipe bu mag ñi. Mbappé bi ñu koy yóbbu coupe du monde 18 am. Mm-hmm. donc on a ce qu'il a fait la nga xamante moom mooy ci coupe du monde bi il faut que moom it bàyyi li mu wax naan ku football yenn championnat yi du mën a jël ak wala di di di xaw a dëgër bopp alors que euh, je pense que football bi demeewul noonu dañu toll foo xamante ni mag amul ndaw di naan mm. aux ans bien nés mm. la valeur n'attend point le nombre des années donc il faut que le sélectionneur national lui-même Aliou Cissé quand même xam ni mm. Sénégal léegi am na gërëñee boo xam ne surtout euh, ah, équipe A bi am na ñoo xam ne man je fi seen place def nañ li nga xamante moom ma seen wala donc il faut faire ay Lamine Camara ngi da ngay xiini mi d'autres jeunes yoo xamante ni. il suffit juste de les accompagner pour que soxna Fati. Mm. ñoom it ñu mën a quand équipe bi compter parce que ñenn ñi mm, dem nañ ba kam li ñu def def nañ ko. très bien nan bàyyi ñi si des nag continuer looloo équipe. aywa jërëjëf euh, mu nekkoon actu commenté bi léegi léegi ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.